Heavyweight.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 faw nga góor ci dara man ma teg ci ne góor ci dara ku mu tax a gore bis bu góoratul ci dara gore di waat li ma gëm daal mooy am gore ñàkk gore loolooy dëgg em gay mii nag li ko dal metti na sawaay daal jamono ko jàpp li muy fayeeku fajalu ko ay soxlaam ba tax ba service bi muy liggéeyee mu sàcc fa 18 baaru fer déet waay sawaay nag ab gardien la am jabar ak fukki doom doon fayeeku francs ay waay ay waay bi ko yoon tegee loxo nag tribunal ci kanamu attekat bi nangu na ne moo sàcc feer yooyu waaye jaaxle rek a ko ci dugaloon sawaay ne def na lu toll ci vingt-sept ans de service mësul jël alalu jàmbur ndaysan waaye tolof tolofi àddina rek a ko jàpp ndax ne am jabar ak fukki doom yoo war a dundal te amoo lu dul soixante mille francs u salaire teg ci mënul ñaan la dëkkee woon ma ne ko nag li bëy xëy di dundee ba sax sikkim bu ko wàccul deewoo ngorom cay ñàkk ba tey m gay nee na ci kanamu attekat bi ca dëgg-dëgg nag mu ngi rëccu acte bi mu def def ko ki nga xam ni moo ko employé doon ko fay salaire ci noonu nag la ko président séance bi ne ñàkk loo dundalee say doom warul doon prétexte bi tax ngay sàcc dëgg-dëgg nag <laughs> waaye tolluwaaye métti procureur bi nag mujj naa appliqué waaye avocat waa ji di maître dene client am lii dëgg yépp wax na ko tey il était de bonne ndax fenul benn yoon ci biir procès bi cëy nattu moom avocat bi teg ci ne ci jamono ju metti ji ñuy dund ku yàlla dimbaliwul mën ngaa def ndog-ndog yi client bi def <laughs> jamono mitti nag ba tax muy ñaan ñu jéggal ko appliqué loi bi ak yërmande ma ne am na kaa yoo xam ne nag foo yërmande daw yoon nag li mu mujjee doxal mooy daa daan em gay ñaari atu kaso yoo xam ne ñaari weer yi dong lay tëdd ëskay lii de mooy doon daw fettentaan ba dal ci xal réew mi nag léegi dimbalantee fi jeex ndax bari nañuy dugg ci ay loxoor te moo ne buñ amoon tuuti soutien rek daañu mucc waa waaye réew mi dañu lay seetaan ak say problème di la seetaan ak sa jàngoro ba nga xëy génn àdduna ñu dajale ne xaaral leen ñu dëj ko mbaa ñu lay seetaan ak say tolof-tolof ba nga xëy dugg ci ay loxoor ñu wër di la toogee te naan ñaw xamoon nañu ko moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax wadd mi li ñu koy tuumal jéggi na dayoo ndax dañ ko accusé ne moo baaraam ab gone gu jigéen ni bu ñëwoon doon ñaan ndewenal ci moom bésu tabaski ba gone gi mujjee yàqu ëppata law ma ne yaayu xale bu jigéen bay wax de nee mbir mi bésu tabaski la doomam demoon ñaani ndewenal waaye bi xale bi dellu see nee ci la gisee deret taq ci tubayam ci saa si mu yanu ko jubal hôpital bi médecin yi consulté xale bi ba noppi dëggal ne xale bi touché nañu ko bi ñu xale bi nag ci la bi mu demee kër waa Wade la ko def jëf ju bon jooju ëskëy Wade nag weddi na feey ndax nee na li ñu koy jiiñ daqu ci laalewu ci waaye ay tuuma yu ñu teg ci derem la te Wade ne deret jooju ñu gis ci tuba yu xale bi jógewul ci ay awram waaye mu ngi jóge ci xaru tabaski yi ñu rey waaw waaruwu leen a neex moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax lu bees na xewatina ci mbirum leet naa ko colonel Mouhamadou Sall mi nekkoon chef section de douane bu Molde nekk ca port bu Dakar douane bi nag dëggal na ne moo faat doomam jooju di Masora la ilaha waaye nag lim ci tega doy waar ndax ne li tax mu def jëf ji ab jinne moo ko ko digal ne ko daa am ndox bu nekk ci putu xale bi te faw dindi ko nag am ndox bu weex la ne ci la jëlee xale xale bi yóbbu daldi ubbi gémmiñ gi forcé ko di secouer bopp bi ak doole ngir mu génne ndox mu weex moomu ci put bi bali xew mu gee xew subhaanallah mbir mi nag xabtal la wala leneen la wala sa waay am problème mu bopp en doy na war fi mu toll nag ma nga ñu yóbbu ca hôpital psychiatrique bu caaro yi ma ne réew mi ku jógul ki sa bopp xam booy xef nooxóor yi di la reere moo tax ma ne de jàngoro ji dal réew mi moo gën a garaaw korona la wax la xew ca géejawaay ca Medina Gunaas doy na war ab waaye fa jàpp gorom bu góor daldi koy assommé ak birig ëpp tëllaw sa waay nag li tax mu def mbir mi mooy bëgg jabaram dellu si waat ci këram coo kii kay ñàkk na jabar fee mu ngi xew altine bi weesu waa ji mu munul supporter mooy soxnaam si fay dem tokkër waajuram mbir mi nag nee ñu nii la demee waa daa dem kër gorom seeti jabaram bi nga xam ne mu ngi fa boobu ak léegi def fukki fan exige goro yi ne day jëlaat jabaram waay ki a réew ba ci noonu la jàppante goro bu góor bi mi mu jàpp ne moo fa téye soxnaam te it jafe-jafe yi muy dund ak soxnaam yépp gorom bu góor booboo ko waral ba tax mu jàpp ko assommé ko ak birig waay ma ne kër gi xanaa amuli góor ñu naan deetawaay mu teg ci jël portable am yépp yóbbu ma ne waa ji nag xaw ma nañ ko def ba tax mu am bi sañ-sañ waaye rëy na waaye nag jàpp kila may jabar yan ko birig noo ëpp na nag ëpp na ma ne xaw ma kan waaye kii day càlle du ko may jabar jàpp sa goro asomee ki birig ay waay waay réew mi li fi nekk kenn mënu koo wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje sam samedi ci yeneen xibaaru buzz